depuis quelques jours ay manifestations ñu ngi tàkk ci réew mi un peu partout Dakar Mbour Thiès euh, à l'origine ay déguerpissement ak yu ni mel mu mel ne problème bu njëkk la bu gars yi di affronter jamono ji euh, naka nga koy gisee parce que ñoom bu doon ñoom la ils allaient pointer du doigt l'État même bu fekkee ne dafay assainir mais tey jii nii xëy seen kaw la tombeel euh, yow koy pointer du doigt jàpp nga ne ñi koy def jaadu nañu désencombré wala ñu bees ñi ñoo gérer wu yëf yi ak tact Sénégal fi mu nekk li xale yi def nii mais ñoo leen ko jàngal parce que ñoo leen ko jàngal ñoo ñoom ñoo jàngal xale yi ki ne boo bëggee dara danga war a yàq da nga war a toj da nga war a euh, am benn comportement boo xam ne du du nekk un comportement bu citoyen bu mm-hmm. moo tax nag euh, pour seen première premier chantier moo nekkoon euh, defaraat comportement yi defaraat jikko yi je pense que fii la sàmm jikko yi nag. Mhm. amee amee un vaste chantier. si ñoom lañ bokk waa sàmm jikko. Mhm. am nañ jikko yoo xam ne fi mu nekk nii war nañ ko defaraat mooy xale yi nga xam ne tey dañoo jàpp ne ñoom ñoo leen fal. xale yoo tey ñoo wane ne taxaw ne dañu ils sont dañu war a redevable. Mhm. cest pour ñoom xale yi. dëkk bi lu ñu bëgg dafa war a am. parce que ñoo fi teg ñi fi nekk ndax populisme ak wane. façon opposition boo xam ne tey moo jur lii. maanaam la première opposition ci ñoom lay génnee. mais absolument ñi la fal ñooy nekk sa première opposition parce que ndaw bu nekk tey mu ngi xaar nga fekk fu mu toog jox ko liggéey.